dafa am aw xeet mooy les juifs dañ leen doon bundu sa Europe je rappelle commencé nañ ñëw ci Palestine euh, dans les années 1917 booba ñu ngi toll ci ay soixante-dix mille ñu dem après la deuxième guerre mondiale ñu gis ne si Europe dafa amoon lu ñu loolu Hitler doon tuddee ñu ne dañu war a faagaagal bépp doomu juif yéexut fu mu nekk. Mhm. donc jamono boobu njiitu di nekk Royaume-Uni jàpp ne li gënoon mooy gannaaw moom moo jiite woon Palestine nu ñu jël juif yi fexe ñu toxal leen. si mhm. terre palestinienne. entre 1917 ba 1946. 650 000 doomu israéliens ñëw nekk Palestine. Mhm. ñu xëy suba 1947. waa Royaume-Uni déclaré ne état bu Israël léegi état bu indépendante la ñu doxal tuuti li si gën a neex li gën a doy waar mooy ONU bi nga xam ne moo nekk kuréel gi ëmb doomu aadama yi nga xam ne dañoo war di def lu ñu mën ngir sàmmanteeg ak yelleefu doomu aadama yi. Mm-hmm. ONU jël benn résolution en 1948 résolution 181 bu siiw boobu. Mm-hmm. ne léegi xaaj nañ territoire palestinien def ko ñaari xaaj si dëkk boo xam ne. Mm-hmm. yow xam nga ne ñii fa dëkk ñoo ko moom mhm. waaye ñu ne dañ ko tudde terre promise mooy lu leen yàlla beraloon la ñoo ko ah, moom ñu ñëw léegi nga xaaj dëkk ba mhm. jaay leen doole jël seen suuf ba pare leen faat avant faat gi dañuy xëy suba ñuy dekk ñuy xeex ak ñoom yeneen dëkk arab yi nga xam ne ànduñ ci woon dugg ci xeex bi ay Irak ak yu ni mel mais ñu ëpp leen doole parce que boobu xam nañ ne Royaume-Uni les États-Unis dañ leen di jàppale mhm. ñu jël soixante-dix-huit pour cent territoire palestinien ñoom occupé ko jamono ci depuis depuis les années 1963 1967 mhm. loolu di dox mais nag loolu kuñ ko def ala kulli al da nga taxaw nga bañ parce que nag am na loo xam ne ñun ñi nga xam ne ay africain par exemple nga xam ne dañu jaar ci traite négrière mhm. pare ñu jaar ci décolonisation xam nañ mhm. lan la nit di daj buñ fekk ci dëkkam nangu suufam jël ko par force mais li si doy waar mooy communauté internationale bi nga xam ne jàpp nañ ne fépp fu ñuy bund xodaa bund xodalee ay nit. dafa mel ni ñoom dañ ci xaw a maandu. dañ si maandu parce que tout simplement àdduna bi léegi day doxee noo xam ne. Mhm. dëkk bu ne dafay am intérêt yooyu defendre dëkk bu mel ne États-Unis Israël dafay constituer si moom benn zone tampon. Mhm. sur le plan sécuritaire. ak moom ak dëkk yi nga xam ne ñooy ñooy le Moyen-Orient mooy dëkk yooyu nga xam ne dañ leen jàpp ay dëkk dictature yu ni mel. Mm-hmm. donc ñoom ñëpp ñu taxaw seetaan ñu jóge ci loolu. Mm-hmm. ñu xëyati suba newaat dañu coloniser ay yeneen terre maanaam li ñu leen jox doyu leen mais faw yokkaat ñu continuer di yokkaat ba moo indi woon si ay jamono dañuy tudde ay intifada ay xeex. ba mm-hmm. ba sax si nga gis ne. ay ay ay ay mouvement yu mag juddu na pour pour xeex loolu si yaa ngi fàttali ko Yasser Arafat yu demee. ah donc on comprend de mieux en mieux le le le conflit. Mm-hmm. mais dañu gis aussi fàllu ne mm-hmm. euh, dañ buñ toogee ab diir rek. dañuy xambaat taal bi mu gën a yokkuwaat la preuve 7 octobre dernier. je pense que gis nañu ay massacre yoo xam ne. dafa dem ba jéggi daay ba sànq maa ngi koy wax. Euh, benn nationale. Mhm. boo xam ne ñu ngi ko jagleel ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne. Mhm. Euh, bu coow la accès fii ñoom la. Mhm. Euh, mu mel ni kon doomu Palestine yi ñu ngi wéy ba tey. di di leen faagaagal di leen faat. xam nga loolu médias internationaux yi dañ ñu la 7 octobre Hamas dafa jug bett waa Israël. rey fa ay jigéen rey fa ay góor violé leen wax sa ay wax. mais dañoo waroon wax nit ñi lan moo indi loolu est-ce dañu xëy suba topp Israël. juddu Hamas li ko indi mooy. ay nit yu yorut arme yorut dara yor ay xeer. Mhm. ay ay nit jàkkaarloo ñoom yor seeni i fetal di leen dóor ñuy daanu seen i kanam. Mhm. ñoom ñu toog ay ati at Israël di ñëw di di rey seen i doom di nangu seen suuf di nangu seen tool di leen jiin viol xëy suba tudd leen ay terroristes suñ ñoo xam ne yaa leen fekk seen dëkk ñu moom ko. Mhm. nga ñëw siif ko jël dëkk ba. mais sëñ bi am na loo xam ne boo ko defee nit bés bu la jekkoo. du mën a dana fayu parce que ñun quand euh, jàpp nañ ne. xëy na ay fayonte ay nit dee parce que position par exemple Sénégal wala nit ñi mooy aujourd'hui dañu war a trouver un consensus ñu toog mooy Israël yem si li mu moom bàyyi waa Palestine ñu dund mais nag bu communauté internationale bi yëpp noppee li ñuy seetlu mooy Israël day jug si suuf di pousse di dàq di tabax ay kër di pousse ay barrage di def lu ko neex ñëpp nopp léegi ñu ne ñee rey nañ lu tolloog mille sept cent mais xoolal Sohna Fatou Kine Dieng depuis le 7 octobre mhm. UNICEF ñi ngi xam le ne chaque minute benn xale dinañ ko rey ci band bu Gaza dépp xeex bi lim lu tuuti tuuti mhm. fukki xale fukki junniy xale ak ñeent mhm. faatu nañ ci lum tuuti tuuti juróom-ñeenti junniy jigéen mhm. rey nañ leen gis nañ image yu doy waar yu doy waar sëñ bi mu mel ne mu mel ne c'est-à-dire euh, communauté internationale moom bu fekkee dañu song Israël ñu ne rey nañ fa junniy nit léegi Palestine non Israël ñoom am nañ sañ-sañu exterminer le peuple palestinien loolu nag dama jàpp ne kenn waru ko seetaan. d'accord dañu daan faral di gis aussi ne bu mhm. marche pardon ma naan marche sax bu jafe-jafe ma saan am ñu dégg ay voix autorisées. Mhm. Sénégal ñu génn di ko ñaawlu. Mhm. tey ana lan moo war a nekk taxawaayu réew mi di Sénégal ku nekk xam na ne euh, dëkk la boo xam ne. jëflanteem ak Palestine yàgg na bi ñu fi samp seen ambassade fii. boobu yàgg na tam. Euh, tey lan moo war a nekk taxawaayu Sénégal. waaw yaa ngi koy wax léegi lu am solo la ñu fàttali ne Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne. moo njëkk reconnaître état bu Palestine comme un état souverain. Mhm. loolu mu ngi am depuis 1989 sous l'ère Abdou Diouf. Mhm. laataa loolu 1970. Mhm. Yasser Arafat. ñi ngi xam ne président Léopold Sédar Senghor nekkoon un président catholique jëloon na ay passeport diplomatique jox ko ko. ngir mu mën a yombal ay tukkeem. bi ñu ba 80 ba 80 ba 1973 xeex Israël Palestine amaat. dañu gis position Sénégal ba jamono jooju indoon na benn crise ba mu dakkal diggante Israël ak euh, Sénégal ba 1992 loolu amaat mhm. beneen mooy depuis depuis 1975 plus de 45 Sénégal moo ko jiite mhm. kon Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne si xeexu Palestine ak Israël moom mhm. dañu yàgg jël position te loolu maa ngi koy wax léegi mi ngi tàmbalee si président boo xam ne président catholique la loolu nag nañ si njëkk a jàng ne Sénégal defu ko rek parce que ñee ay jullit lañ dañ ko def parce que ñun dañu jàpp ne doomu aadama dafa sacré mhm. injustice mhm. ci dëkk yi gën a gën a bañ nooteel gi ñuy noot waa Palestine mhm. parce tout simplement ñun dañ ko dañ si jaar dañ ko xam mais nag aujourd'hui ñi nga xam ne ñu ngi doog a toog quand même euh, président Bassirou Diomaye Faye bi mu demee si sommet bu OCI yi fii ci Banjul mhm. dégg nañ mu réitérer quand même la position du Sénégal pour wax ne ñun kat ñu ngi ñaaw lu la fa xew te itam ñu ngi waxaat suñu diggante ñu ngi koy gën a féddali kon mhm. xëy na dañuy doog a mais li am solo nag mooy mhm. taxawaay bi Sénégal amoon ñoom nañ ko gën a dëggal parce que kenn dafa mënut nangu waxuma ay jullit ak yeneen ak yeneen mais problème mooy doomu aadama si àdduna dañoo dépassé vingt et siècle ñu naan ñi ngi coloniser ay dëkk communauté internationale rawatina les États-Unis bi ñuy wax ne mooy première démocratie au niveau mondial di taxaw presque di cautionner la bu ñu waxee ñu ne non euh, nañu fexe en tout cas aide humanitaire aide bi dugg ak yu ni mel mais loolu sëñ bi du solution bi mhm. dëgg gi mooy kuy wax dëgg Israël dafa tooñ mhm. ñi am doole parce que tout simplement c' est intérêt géostratégique la. Mhm. donc àdduna bi nag bu waree dox noonu ñun ñi nga xam ne ay dëkk yu néew doole lañ xam lu tax ñu war a mën a def lu ñu mën ba lii dakk mhm. maa ngi la koy wax suñu biir waxtaan ñun dañu dund ay période yu difficile si suñu histoire. Mhm. mooy traite négrière colonisation yu ni mel. léegi dem nañ ba àdduna bi. question sécuritaire question économique mooy guider les pays les les les puissances mm-hmm. mais ñun léegi bu ñu toogee di taxaw ñu xëy suba faagaagal Palestine ba nangu suufam da ngeen yaakaar ne puissance yi foofu la ñuy yem. dañuy continuer di dem. Mm-hmm. ku la wax ne ñun suñu pétrole bi ñu yor wala suñu yi ñu yor tubaab yi soxla ko ëllëg mën nañu dem ñu ne. ñii kat ña ngi ñu koy xañ parce ñu ngi commencé am seen autonomie est-ce que duñu leen song moo tax dafa am loo xam ne lu ñuy wax injustice képp ku ko bàyyi muy dem dalaa dalagut waaye képp ku ko bàyyi muy demit bis dana ñëw mu dal sa kaw kon suñu autorités yi ñu leen di ñaan nañu gën a am taxawaay moo tax lii nga xam ne dañ koy wote muy marché dañu jàpp ne nañ mm. ci ñëw boo ko defee ñu xam seen taxawaay très bien aywa léegi nag ngeen def marche pacifique mm-hmm. ci conflit bi nga xam ne mi ngi am euh, ci dans la de Gaza. waaw marche bi euh, d' abord euh, fàttali naa ko léegi Sénégal rôle bi nga xam ne joué na ko quand même si conflit bii nga xam ne am na si Israël wala ma ne sax du ma ne conflit damay wax noot bi Israël di noot Palestine. Mm-hmm. donc ñun donte nekkuñu dëkk bu am doole si wàllu koom. Mm-hmm. waaye dëkk lañ boo xam ne quand même wàllu diplomatie wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ay jafe-jafe yàgg na am suñuy njiit di si dox luñ mën mhm. tàmbalee ko si Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Wade Macky Sall ba aujourd'hui ñii fi nekk nga xam ne jàpp nañ ne dinañ si def luñ mën mhm. kon ñun suñu wareef la ñu bañ a toog rek di seetaan mhm. parce que nag faaw peuple palestinien di sentir ne peuple Sénégal bii kat taxawaay bi ñu daan am ba léegi ñu ngi koy am parce que ñoom gis nañ ne peuple Sénégal quand même fu seen bët xonqe même au niveau international saa yu ñu waree voté benn résolution boo xam ne day tax Israël arrêté gis nañ ne Sénégal dafay bokk ci dëkk yi ko porte moom ak Irlande Vénu ak Venezuela mhm. donc tey dama jàpp ne marche bi li tax li ko gën a jug mooy mhm. bi njëkk dañu jàpp ne doomu aadama mhm. weesu na fuñ koy jëlee di rey comme ay xar kon dañoo war a jug dénoncer loolu lépp ba àdduna bépp dégg ko beneen bi nag mooy comme ni ma wax léegi ñu ñoom ñu sentir na ñun peuple Sénégal ñu ngi koy ñu ngi leen taxaw parce que tey c'est vrai que suñuy mbokk jullit da siy jouer mais ñun Dieng boo xoolee Sénégalais buggul kuy noot doomu aadama. Mhm. kon nag tey bu ñu jugee marche exiger suñu autorités yi na leen kat wax leen si lii. pourquoi pas ngeen rappeler l' ambassade euh, Israël bu Sénégal. Mhm. donte ñu ngi am ak ñoom coopération. Mhm. mais ñun nag mënuñu toog rek du observer. Mhm. comme la comme la fait la communauté internationale donc marche bi li ko gën a wunu mooy. ñu xam ne daal ñun Sénégal. peuple Sénégal bépp lañ koy defal nag. ñu xam ne ñun lii di am Palestine ñaawlu nañ ko. xëy na ay période électorale lañ nekkoon xëy na ñu bëri taluñu ko woon. mais lii dëgg te dëgg mooy bépp Sénégalais boo taxawal waxtaan lañ koy. marché bi ay doomu Sénégal rek ñoo ko bokk wala am na yeneen euh, nationalité yu ci ci bokk. Euh, ndakaaru kese lay yem ndax am ngeen yeneen xalaat. jëm ko wàccee wala boog waxtaan ak. def pourquoi pas waxtaan ak ay kilifay diine. Euh, ak sunu xalif généraux yi pour xool naka la ñuy def ba mën a yëngal tuuti. waaw marche bi première étape la parce que marche bi dañu jàpp ne mooy étape bi nga xam ne dafay. Mhm. dafay commencer les activités. Mhm. moo tax ñi nga xam ne société civile lañ nekk Sénégal gi yëpp incha allah rabi dana ñëw. Mhm. mais aussi ñu ngi xaar ay corps diplomatiques ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne tey taxaw nañ ouvertement ñaawlu. dañuy teg Palestine dina reconnaître Palestine comme un état te jàpp nañ ne bëri si dëkk Afrique yoo xam ne tey jii. Mhm. reconnaître nañ Palestine comme état donc ñun. Mhm. on a envoyé des invitations yoo wax dëgg yàlla si si si si si mission diplomatique yëpp. Mhm. ngir ñu ñëw teewee manifestation boobu. parce que ñun lenn rek lañ si jullu mooy dañu jàpp ne jàmm war na des pour dara. ñu woote pour mu am dal. ñu waxtaan. maintenant nag incha allah bu ñu si jógee itam fas yéene nañ jéem a def ay démarches s'il le faut. l'implication des autorités religieuses. si mhm. parce que ñoom sax wax dëgg yàlla ñàkkuñu xam li li xew waaye nag. jot na jot na ñoom it ñu ngi ciy def ay jéego. waaye gis nañ par exemple la déclaration de Serigne Mountakha. Mhm. daanaka fi yàgg te wér wax wax ju am solo. Mhm. Euh, du ñàkk itam danañ sensibiliser aussi gën leen sensibiliser xam nañ ko sax. ngir ñu bañ a noppi parce que nag Sénégal seen kilifa diine yi euh, seen kàddu fa muy àgg. Euh, ñu bëri dañ ko xamul. Mm. mais saa yu ñu waxee au niveau international dafay am impact. moo tax ñun dañuy ñaan kilifa diine itam. Mm-hmm. Euh, gannaaw bu ñu defee marché ba pare dinañ jéem a dem gis leen pour ñoom ñëpp ñu àdd bu ko defee. Mm-hmm. ça va permettre à l' Sénégal mu gën a am force quand mm-hmm. mën a gën a am taxawaay bi nga xam ne daf koy taxaw jëm si xeex bi nga xam ne ñoo koy noote doomi Palestine quand très bien nga rappelé rek euh, itinéraire bi fan ngeen fas yéenee mm. a tàmbali 9h. ñu ngi tàmbalee ko si rond point bu RTS. Mhm. dox ba porte du millénaire. Mhm. Euh, incha allah euh, ñu bëggoon xëy na rek mooy. Mhm. gannaaw autorisé nañ ko aussi c'est bien. Euh, c'est une marche autorisée naa mooy doomu Sénégal yëpp nag ñëw parce wax naa ko léegi du ne suñu mbokk jullit lañ rek wala yu ni mel. Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne nanguwuñ nooteel. dafa nekk dëkk boo xam ne saa yu ñu jaayee dëkk doole rawatina xeex bi nga xam ne xeexu Palestine la. xeex bi nga xam ne dañuy noot ay doomu aadama di rey ay gone di rey ay jigéen. te mu mel ne Palestine àdduna bi ñoom ñoo fi dëkk boo xam ne daal beneen dëkk am na sañ-sañu jóge dëkkam. ñëw nangu suufam ndax lan amul kenn ku ko jàppale. wala ñu koy jàppale boog amuñu doole faire face. et malheureusement aujourd'hui eh, Ligue arabe aujourd'hui les pays arabes yi nga xam ne. Mm-hmm. ci wàllu koom dañoo am doole ba ñëpp xam c'est-à-dire si ay dénoncé rek la mhm. la position de l'Arabie saoudite. ils sont aujourd'hui mhm. ni waroon a mën a imposer. ba mhm. Israël arrêté waroon na mën a nekk. loolu nag aussi dama jàpp ne tam suñu suñu njiit yu bees yi war nañ ci gën a tam ndox. parce que parce que aujourd'hui àdduna bi euh, jàmm bu ñàkkee bitim réew. boo xoolee dafay répercuté wu suñu suñu mm. suñu dëkk yi donc fépp fu am ay ñun Sénégal suñu kàddu àgg fa dañu war a def tout ba loolu dakk mm-hmm. loolu nag jàpp nañu ñun dana suñu autorité dinañ ci dox euh, incha allah rabbi euh, ñun tam incha allah lépp lu ñu mën dinañ ko def mm-hmm. euh, pourquoi pas jéem a rencontrer le ministre des affaires étrangères et mm. puis man jàpp naa ne sax moom ñi ngi koy invité mu ñëw si marché bi du ñàkk na jot na lettre am mm. parce que nag aujourd'hui képp kuy sénégalais war na ñëw jàpp si beneen bi mooy t yi nga xam ne ngeen gis ñu sol tam mm-hmm. Euh, dañ si defar t-shirt yu bëri yoo xam ne dañu bëgg de façon symbolique kenn ku ne booy ñëwee si marché bi nga jën benn t-shirt mm-hmm. boo ko defee liñ siy dajale mu ko néew lu mu bari ak lu mu tuut tuut ñu jël ko jox ko mm-hmm. ambassade nga xam ne moo moo nekk Palestine boo ko defee ñu participer si mm-hmm. li nga xam ne ñu ngi koy dimbalee doomu Palestine ñaata ngeen koy wéccee ko li t-shirt non amul prix moom lu waay joxe rek lu waay joxe rek jox la t-shirt merci ngi lay sant di la jërëjëf Euh, El Hadji Fallou Xuma muy woo ñëpp nag ci seen marche boobu euh, di fàttali ne marche pacifique la boo xam ne daal dañuy ñaawlu nee ñu nooteel gi ñu gis foofu nga xam ne euh, ñi ngi koy def ay doomu Palestine mu bokk nag ci l'africaine de médiation de gestion et de règlement des conflits ci kanam tuuti mbokk yi xibaar yi ci wolof ci yaatal ngeen desandi ak télévision Futurs média